mi ngi noonu mbokki bàyyi xel SBT am nañu mbégte ak kontaan te ñëw fii nga xam moom mooy géej waaye seet fi Thiandoum 2 jógee ci tàkkusaan ñaari tàkkusaan sax yoo xam si ni booba léegi yaakaar naa booba léegi laalante wun waaye SBT wax naa la moom li nëbb lépp ñoom ñoo koy feeñal macha allah dox na seeti mbër na moon leen bu baax a baax te nag kenn seet champion la ndaanaan la bokk ci làmb macha allah bu bëree mu neex bu feccee mu neex bu xeexee mu neex Thiandoum 2 ñu nuyu la bàyyi la nga mbokk internet yi. mos billahi min taanir bismillahi rahmaani waaw Mass maa ngi lay ziar barab SBT maa ngi lay ziar jox sa wàccuwaay ji la ñaanal jàmm di ziar ñëpp di waa géej waa yëpp suñu gox suñu lépp ndax fii lañ ci tur amul feneen fu dul fii kon tey jaadu na tey bu ñu commencé lu ñu mën commencé àdduna bu ñu commencé rek ne war a commencé géejawaay képp ku yeewoo rek ñu la jox sa wàccuwaay di la nuyu di la ñaanal jàmm di ci yow naan la si waay bi nii bisimilah. ji nii Ibrahima nag xaalil laay borom café gi ah. waaw. borom borom borom meew oh kii kay waay lu mu defarul neexul kii mooy safle yow dégg naa saf loxo. waaw. Ah. sama doom day Sidi Kara Abdou Gaas. waa Kaso dal jaamu waa yomal xiyaam waa Ayti waa Tooy Boy. mooy fan. waa koñ fii sama gars waa Gunaas waa Baxdaat waa Guigé waa Jati Mbaar suuf Baxdaat kaw. kullum rek képp ki bëggee càndum rek waa Malika rek. rawat na waa Malika dafa am ay fasikale boo xam ne ba Kër Massar man daal caanum caanum Sénégal laa du ma caanum Géejawaay kese caanum Sénégal laa ji ni sama mbokk jolof jolof nag di leen béggee bu baax a baax a baax waa Kaolack nag mention spéciale di leen nuyu di leen ziar josal wàcc waay bu a baax a baax mais li boo waxee Saalum rek yaakaar naa fi mu nii mooy mooy li nga wax mooy réew mi yaay réew mi kon Thiandoum mooy réew mi. waaw loolu yàlla dogal parce que man ma yàlla moo def damaa juddoo Saalum maa juddoo damaa juddoo Bawol màggee Saalum yaroo Ndakaaru waaw jolof gi nag moom ci ndey ci bàyyi la waaw. mukk ci àdduna. ku ma jëppale ëppale ma ci. waaw nag ji nuyu nag des élonnances le petit président muy Lat Diop ñu ngi ñu ngi koy ziar bu baax a baax waay géejawaay ñu ne ñu ne ñoo fer ci géejawaay sa moom dafa bëgg géejawaay jàppale géejawaay moo tax il faut ñu fekk ñun. lu ñu sol drapeau Guédiawaye la sax lañ ci déroo ndax am nañ ko baax mu jàppale ñu tamit ñu ngi koy tàllal loxo bu baax naka noonu ñu nag doomu Guédiawaye la te doomu Guédiawaye la mu gën ñu gëstu ko ñu bàyyi loxo bu baax a baax ñu bàyyi xel bu baax daal ndax ñun ku bëgg Guédiawaye ko ziar bu baax di ko ñaanal jàmm ak li mu bëgg moo xam ne yàlla defal ko ko nii nii sama yaay Adja Marème Diop mention spéciale borom mbaaw maa ngi bu baax a baax a baax dafa dëgg yàlla ci ñaan sa baab Moussa le maire Bayit Seye na ko yàlla yërëm du ajjanaay firdawsi dafa di yàlla suñ papa bëri see moo tax mu jàpp ñu si ba mu demee ba léegi jàpp nañu fàttewul dem te dañ ne kóllëre ginnaaw lay féetee nekk na suñu yaay nekk suñu conseil di ñu jàppal di ñu taxaw ci lépp amee combat ba combat yi paase wallaahi jàpp na ci kon amul leen lu ñu ko wax lu ñaanal jàmm rek ñaanal sutura li bëgg moo xam ne yàlla defal ko ko barke Seydina Muhammad di ñaanal sama yaay jaari mbay bu baax suñu présidente école lit ñu koy nuyu di ko bu baax a baax a baax ak waa école lit Ndiaga Sarr gi yëpp yëpp yëpp yëpp leen nii di leen siyaar baax sama yaay jaari mbay ñu ngi koy ñëw di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ko ñaanal wér ndax suñu jàpp ñu baax a baax papa Ndiaga Sarr nag ñu ngi ñaan encore ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla yëram dugal jànnaay fi daw si parce que tey bu ñu demee ba naan càndoom càndoom rek ginnaaw yàlla moom la ñu ko fàtte mukk mukk waaw la macha allah waaye ko xool ni mu nuyoo xam ne nuyoo bi macha allah jot na lool tabaarkàlla waaye nañu ñëw ci làmb tàmbalee ko si euh, ñaari combat yi nga xam si ni moom ko jógee ci lañ bëgg taxaw def taxaw seetlu sa diggante Ndiaga Thiam yaakaar naa ne euh, bi nga koy jël ci diggante bu gàtt nga ko jël euh, ci moment boobu noonu am na adversaire yu bëree bëri yoo xam ne doxoon nañ ko bañ doon xaar sax avance génn wala présentation ñu jékki-jékki combat yu yàqu lan moo tax Thiandoum 2 mu jógee si digganteem ak yaakaar naa Boy Niang bu bu Malick ah ba tey yaakaar naa bëriwaatoo woon lu taxoon say combat naqaree wut ak yu mel noonu lan la waaw gi doxoon Pikine ji nuyu Adja Mbéri maa ngi koy bu baax a baax a baax di ko ziar sama yaay sama xarit la dëgg yàlla kenn la ci man mooy ku baax maa ngi koy bu baax a baax di ko ziar bu baax sama yaay sama conseil la di nuyu Modou Gueye ndax man bu ma xamee Modou Gueye ginnaaw yàlla moom la monsieur le maire caara ju dëkkaw ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ziar nag ku xam ne nii kenn la ci man dëgg yàlla kooku moom sama ko papa dafa def lu ci dafa datey def lu moom kenn musu def ci àdduna dama defal ci combat bi passé yàlla sama maa ngi koy moom muy Pape Demba bi tey Madimba bi tey ñii madame bi tey borom Kaolack mm, mooy mooy mooy directeur directeur Sénélec maa ngi koy nuyu baax di ko siyaar nan ko gis nañ xéwal gis nañ teraange ji la ñaanal loo bëgg lépp loo bëgg rek yal na yàlla defal la ko barke Seydina Muhammad kontaan nañ trop wala nga ne doomu Kaolack ñun ay doomu Kaolack moo taxaw nga ñu jàppale nga ñu ñu ne ñu ànd ñu ci daal di la bëggee di la siyaar bu baax nan la ci kaw ci kanam ci lu baax rek waaw mais xam nga ñun ñun yàlla def na ay ndaw lañ nekk ci làmb ji nekk ci làmb di ko ñefe amoon départ bu baax macha allah ba léegi sax dafa baaxul ba léegi baax na dara yàqu ci tegal ay victoire xam nga seen làmb fii moom boo tegal ay victoire rek mbër yi bëri lay xaw rek dañ lay xaw bàyyi xel surtout loolu rek la moo tax dem ba dañuy jël loo xam ne nii ñàkk pexe moo doon ñu ko waaye nekkul lu ñu gënal loolu rek la moo ñu boole woon ak adversaire yooyu noonu. tool day wax ne ñàkk pexe pexe la. waaw mais xam nga mbër su bëree wu rek dootu mbër mbër su mbër koo dégg naan mbër tekk ngeen mu di bëree boo dee too ngeen mu dootoo mbër sa at yi tamit mbër day combattre loolu nag moo taxoon jël ko waaye bañ ko jël sax yàlla seet na wallaahi lazim bi suñu yoonu làmb sax. est-ce que bi nga doon jël Ndiaga Thiam xamoon waaw mais xam naa ko xam naa ko am naa nga Ndiaga Thiam boo xool moo ma njëkk a bëree ci làmb waaye yàlla def na tey bu dëgg rek neexee yàlla tey tur am ci làmb amu ko ci làmb te ñi ma bëreel sax yàlla def na bëriwut ak ñoom peut-être loolu la woon naam amuñ amuñ choix parce que adversaire yi ñu waroon a bëree ñëpp nangu ñoo jël suñu morom moo tax moo moo taxoon jël ko par yàlla def tam ñu ñàkk sant yàlla xam ne ci ci yoon la war bokkoon ci yoon rek parce que dafa bokkoon ci yoon rek loolu rek la ci biir ci biir combat bi yow ak Ndiaga ñu gis ne euh, c'est la première fois ci ci làmb Thiandoum da ñëw xeexut bëriwut boole ko daanu jëlu bu façon jëlu bu mel noonu. waaw mais àdduna demee noonu gis nga euh, làmb dañ naan bisu mm, bisu ndam du bisu ñàkk waaye bisu ñàkk tamit du bisu ndam ñëpp xam nañ Thiandoum da ko ak xam ne làmb da ko ak mu sëkk ci entraînement ci lépp mosuma simee ko bañ a cam keroog ñëpp xam nañ ne liggéey naa waaye nag ko dara loolu yàlla namoon ci man sante ko yàlla rek

yàlla de yàlla def ma bëre ñoom leen ba man moom peut être tey jour boobu xam nga day dañu la boo waree ñàkk doo xam li li li li bët ba ngay ñàkk xamoo ko loolu la yàlla dogaloon rek sant nañ ko yàlla ñaan yàlla nag victoire bi ci ñaan yàlla may leneen rek nga nga jógee nga jógee sa diggante Ndiaga Thiam yaakaar naa def tekk booba léegi yaakaar naa ne eh, waxoo nangoo wax na nangoo wax ci média lan la nga ne nga ne tekk tekk gi laa ma wax war waaw mais tekk yi xam nga tey ku xamul foo jëm nga dolli fa ko jógee woon tey dafa ma du tekk sax dafa bëre ñàkk toog sama dox nekk samay mbokk waayaat parce que làmb moo demee noonu man yàlla dox di xasabatul ma mbër xasuma mbër sax waaye dina ko man ñoo xam ne nii chaque instant dañuy wax dañuy wax déedéet image dafa seer te nit te image waroo ko waroo ko pasaare tellement fu ñu tëll ji la gis déedéet déedéet man su wax jotee ma jéem wax peut-être day doo jot moo tax ma jéem wax nga jógee si jël saa bokkal ci diggante yaakaar naa Balla Gaye ak Boy Niang muy le premier janvier nga bëriwaat ci sa diggante saa bokkal pourquoi nga defaat choix encore adversaire boo xam si donc gëjoon na bëre nga ñëwaat nga jël ko comme li ma la wax nee naa la ñun amul amuñ ci ndey amuñ ci baay amuñ ci bàjjen amuñ ci dara làmm yàlla moo def ñu bokkoo mu yàlla napp suñu bokkoo trop mu nekk ci te dañuy toll boo xam ne dem nañ ci làmm xam ne nii mën nañ am adversaire yoo xam ne nii ku ko dégg danaan li jaadu na jël combat yoo xam suñu mbokk wala suñu xarit bi ko gisee rek ñaan la moo tax nga jël combat bi waaye tey Ndiaye Fessène mooy tax a falu loolu rek la du dara wax dëgg yàlla ñu jël ko tamit respecté ko jox ko cër liggéey la ñu war a liggéey lépp liggéey la ñu war a liggéey entraînement bu baax a baax a baax yàlla suturaal ñu ñu dem comme dab tamit ñàkk mu nekk deux mu nekk bii mooy ma tegal deux fois defet xam nga ku teg six ans xamu sept ans daanoo tey nga ñëw tegal deux fois defet mit na trop ci benn année bi mit na trop waaye nag loolu lépp sant yàlla la nga dikkiliwaat ko sa kanam xool fi nga wéjjee xool li nga manqué loolu rek la nekkaat ci. mais mais sa combat ak saa boo xam amateur yi merewuñ la parce que yaakaar naa ne euh, li ñuy wax làmb ngeen ko yéen ñaar mooy xeex ba ñun ko daanu comme si diggante njëkk jàmm nga xam ne dangaa jékki-jékki rek comme ça làmb yi demee noonu vraiment amateur moom ba tey am na loo xam si même njaga càmm daan sax amateur yi kontaan parce que li ñu mooy c'est-à-dire ñaari champion ñaari ndaanaan te sa diggante saa bokkal yaakaar naa ne keroog bëri ngeen ci ngeen bëri ngeen ñaari ndaanaan kenn ku nekk ni ko Père Massi waxee rek ñaari dugg benn génn suñu borom ànd ak ki nga xam ne moom mooy saa bokkal macha allah keroog mu amateur jéppuñ leen waaw mais ma yàlla suyal na ma parce que damay ma bëree mu neex su ma xeexee mu ma feccee mu neex loolu yàlla suyal na ñëw wareef la xam nga tey ñaari ndamay dugg benn jën li ko Père Maxime Bargane di ko waxee da waroon lépp def nañ ko ba ñëwee boo xoolee ca géew ba lépp maa ko def maa xeex maa duuma maa daanu tamit loolu yàlla namu parce que tey Siteu ba tey bu leen tàmbalee victoire tey nga ñëw tegalee ñëw daanu daanuwaat tellement day métti trop moo tax man la jamono tool nii wax ji mënul bëri li li war a bëri mooy jëf gi waaj xool si kanam xool li ñu yaaxal lan la ñu moytu ko sa xool tamit tracé bi ñu tegoon nga teguwaat fa incha allah daal lay ñaan yàlla xam ne loolu ngeen daal la. sa combat saa boo xam moo nekk si ñaari combat. Hmm, sama douzième combat. douzième combat waaw. ok ak 9 euh, 9 victoires. waaw ok sa deuxième combat nga daanoon yaakaar naa. non sama troisième combat non sama quatrième combat laa daanoon. waaw ñëw ba ci onzième combat ma daan ak douzième. mu nekk loo xam si nii la wax chaque jour ku bañ a daanu rek bul takk ngeen macha allah téewul ba tey saa xëyee mi ngi ci gis ngeen ko macha allah ku xool nii xam ne état forme bi macha allah léegi fi nii dafa mel ni amatul amatul xaar de ëllëgu làmb foo jëm làmb ji fi nii ni sàjj ni yaakaar naa ne moom fi ne nii xale yi moom li ñaan gaynde mer dafa naa noo xam naa ni nga soxlaa ni am na ñu soxlaa noonu moom macha allah. waaw mais xam nga adduna moom adduna moo demee noonu ndax bu sañoon booy wuti doo ñàkk mu ko am rek waaye nag yàlla yàlla dafa tracé ab yoonam ndax parce que dama daa am victoire muy neex lool te bu ñëwee ñàkk bi naa jël bisu bisu ndam ya teg ko ci bisu ñàkk bi teg ko bisu defet bi maanaam fàttali boobaa dina neex parce que yàlla moom ku bëgg a lay tegee nii du tolof du tolof war a daan daan loo rek amoo tolof tolof amoo jafe-jafe na ma daa ñaanal ñëpp ñoo ñaana maa ngi nii waa Fatick nag bu baax baax ak waa Mboro bu baax a baax ak Baye Mass borom saakeet bi ñun ñëpp ñëpp ñu may jàppale rek waa Fatick rawatina waa Fatick nag waa Njaay Njaay maa leen nuyu di leen bu baax a baax waaw képp ku ma ñaana rek maa lay tàllal loxo bu baax ma la nga yokk nag xam ne xaddiwu ñu décoration wu lépp lu war a suñu ñu ngi koy def dañuy yokk waaye duñu waaj incha allah rabbi wax suñu supporter nag bor bi ñu amal nañ toog ñu xaar incha allah danañ ko fay bu neexee yàlla fu ma jëm maa ngi trace sama yoon toog rek tegaat sama roxu ci entraîné rek daal lépp jox ko assisé rek sama manager bu mu joxoon ñu dakko ngi lay wax ay adversaire wala. waaw fan yii wax waaye nag buñ toll man maa toog di xaar waaw. looy xaar parce que adversaire a bëree mu monsieur Paris dañoo am combat. te tamit buñ la jël loo xam ne du la arrangé wala da nga jël loo xam ne tamit amul la te man dama dama ñaan yàlla képp moo jël comme ni ma doon jëlee combat jànq ñëpp nañ càndum càndum tey mu dee loolu laa bëgg moo tax bëgguma tax di yàlla di jël ay combat ay yenn combat yi xam ne nii moom boo ko jëlee ñaan ay càmm non non bëgguma loolu. bu saf nga bëgg. ah waaw pourquoi pas parce que tamit man nekkuma yàlla def na moo dëlee bëree ba léegi man damaa ah, moo dëlee bëree musuma bëgg mu doon bëree lu yomb te ñaanam yàlla bëree lu yomb allahu rabbi. léegi comme adversaire yoo xam si ni tey day nekk ay adversaire yu jaadu yoo xam si ni boo ko waxee amateur yëpp dañu xam ne làmb ji làmb ju jaadu làmb ju neex la ku si mel waaw. bool nga bëgg dugg de. man question man man caalum caalum géejawaay la. pare na pour bëre ñëpp man amuma xaritu mbër ci làmb déedéet ku dugg géejawaay xaritoo maa yow. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que sa diggante kéwal loo gëm la est-ce que wala lu euh, li nga ndékkee moo neex wala fi nga toog a sedd ba nga naan kéwal kéwal du ñuy xam ñebe de ndax boo xoolee combat mu jógee euh, digganteem ak Tidiane Faye ak digganteem ak euh, nu mu tuddati Jokkel yaakaar naa nga xam ne macha allah. Tidiane Faye sax boo may chance ma jël sama grand frère boo may chance ma jël. te di war a ñu koy tàllal loxo bu may chance man daa déggoo man la man am lu may kekk am lu may so wallaahi laasim boo ma moo joxoon par exemple bu bëreeg moom man am lu may si tàkk man laa mooy sama métier moom laa gëm tegu dama ciy nekk di entraîné kon amul lu may calculé amul lu may sóoraale déedéet. ba ci kéwél mais nga xam ne si nii li ñu naan gaynde mer dafa naan dafa soxla. musuma waat ci laam waaye barke sëñ Babacar si commande bu ñëwoon tey tey tey tey avancé bu ñëwoon tey tey ma lekk. kéwél men. billaay la si. wallaahi lazim. mbaa yëngu na ku lekk avance am ku ne da ngaa da ngaa xeex bay bëgg a dee da ngaa samp jaaga. waaw amul problème amul man mii naa ardo na ku mënoon ardo gi man mii naa ardo. non kéwél moom du fi nekk di la dóor ngay def ardo yooyu moom kip kip làmb ji jeex la ngay def waaw amul problème làmb rek lu lu mu mënti mën na ko def a man fi ñu dama koy ñaan a jël avance rek ndax làmb boole ñu ñaar. moom kéwél waaw budul kéwél waaw ah, bu du kéwél yow maas yaa ma gën a xam ñu war a bëre non mais man man naar kay naar yaa ngi nii nag yow nag wax dëgg yàlla am fi ne yaay dugg ci géew bi yow la ñuy dóor yaay kii man laa ma man xaw ma ci dara de man ne foo cuquma baatare ko dégg naa nga ne Tidiane Faye na la may chance sa grand waaw grand frère la gis moom dafa toll fi ñu may chance kay la bëri la ma dëgg la moo tax ñaan yàlla bëri cinq waaw ah, parce que loolu lañ bëgg kala rek bu ma damay bëree moom sax bu ko bëree ñëpp gis nañ la am waaw. su ma la déggee da ngaa bëgg wax da ngaa aay ci bërikat yi. waaw trop trop parce que pour nga doon daanaan foo nga daan ay daanaan c'est li ci man daanaan rek moo ko mën a yee. lii nelaw ci yow. daanaan moo ko mën a yee. te kon jàpp nga ne ci Tidiane Faye sa lii nelaw ci yow day yeew. wallahi lazim xam naa loolu baax a baax a baax na xam naa ne bëreekat la te bu ñëwee danañ bëre ba stade bi kontaan. yàgg naa bëre ñuy kontaan waaye danañ gën a kontaan incha ma li gën a jafe ci mbëri laa am man yàlla amateur ñoom bëgg seen bopp ndax xam nañ heure bu ma simee ko ngi état heure bu ma bëree ñu ne dina ca mbayam ñëppay kon ma bëri Tidiane damay neex ma grand frère la. budul Tidiane fay budul Kéwal. waaw budul Tidiane bu Kéwal ku ma lam boole rek ñu toll bu xam nga la mooy problème fi làmb jamono toll nii. non mais man dafa am combat boo xam si dañ ko yàgg coow di ko coow nga yàgg cee wax ñu ci wax ñu yàgg koo dox muy wër-wër loo mais yow wala léegi da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa da nga ko da nga ko mujj ragal wala lan la wala ne moytoo ko tudd quoi. parce que kan ban mbër la ban mbër la. booy bi nekk bawal. ban booy la. borom borom borom borom dóor yi rek. kan la walaay xaw ma kan la. kan la booy booy bi tàng bi rek. waaw booy bu tàng boo waxul turam dama xam ne. tàng jër la def noo xam nga ko yàgg yàgg ngeen dox seen combat ngeen wër-wër loo. ma ne buy bi tey du am njëriñ. bu dee léegi wax ñoom ko wax ko ma tontu man kay amul lu ma ciy ragal mais yow yaa gën a xam ki ma lay wax yow mi laay laaj kay yow mi ko ragal ba nangatoo ko tudd kay laay wax non ko xaw ma ko boo waxee turam ne ma xam ko njaatin sa diggante njaatin non Ndiaye Tine ah, xam nga tax sama wax man ak moom du bëri parce que Ndiaye Tine man ak moom dox avance ba ñu ba confirmé war a jëlee avance mu delloo avance bi sama mbër moom delloo avance bi man la wala dóor yi a xam maas fi toll nga bi wala si ñoom la yàqoo man xam nga man mbër moo xam lañ lay jox mbër ma ñëmewul wax dëgg yàlla dama bëgg ci wax ci yow quoi dëgg yàlla franchement euh, ma Ouzin Ouzin bi nekk Wassare woon na ma wax ba confirmer ci lépp ba dem ba suba lañu def présentation ñaan ay mbay ndawaan xom père mbay ndawaan moo bañ xamu nangam ak naa wax seen wax bàyyi man mbër bu ma wax dëgg yàlla dama bëgg wax ci yow quoi franchement parle su ma ñëmee nag su paree nag pare naa am benn problème waaw la fi nekkoon am noonu daw wala ma koon bañ ba léegi moo fi ne man ak moom maay maay corriger maay xeex maay bëree maay daan incha allah. gis nga si diggante bi de yaakaar naa ba baax ma ñëwoon si ñor keroog baar tontu la xeex nañ mu duma ko ñu bëree mu daan ko jël boo xam si nii euh, ba tey nii lamb du ko fàtte diggante ma Giro Seras gis nga ko baar tont tontu encore. waaw mais xam nga man nit salte bi tuwaat jàmm diggante ma Giro Seras ñu làmb jooju avant combat bi xam ngeen ne kii lii moom wax lamb lañ làmb moo leen boole nii rek waaye du combat ndax day tolloowul par rapport man ak moom tey bu at bi suuloon mu suulee lu mu ëppale ma ne baa ma ñëw si yow xam nga fa demee woon promoteur dox na ko dem ba ji bi gis nga teg ko yomb na waaye bëre moo jafe de man jàmbaar moom may moo tax ñaar ñi ma mujj a jëlee dama leen sant dama leen sant ji leen ji leen gërëm njaay njaay si ñeme ma wóor na yàlla ñeme ma moo tax ay waxam du sax bëgg di wax waxam du ma jël sama doom quoi mais mais man njaay damaa gis mu bëri ñoo xam ne ñoo la gën a tàng fuuf gën laa danser man lan la war a ragal si yow laa xamul waaw lan moo tax ñu tegal ko lan moo tax ñu tegal ko teg Guiro Séras mu dem jëli Guiro a danaa jàpp na kon nooy lay wër. ah waaw mais parce que tey ba mu jël a Séras dafa Guiro Séras doole sa trop xam ngeen xam ngeen loolu yéen làmb sax xam na loolu la moo fi nekk dañoo war a bàyyi rek. dañoo nag na nag du ñu xam ndax boo xoolee làmb ji même biir combat bi bëri nañ combat bi lu yàgg mu wër ko ndox ba mënul fexe ba daan ko Guiro ndaanaan la de. non Guiro ndaanaan la macha allah ndaanaan la jàmbaar la champion la ndaanaan la champion la waaye nga la mooy problème ñun suñu làmb mooy rakk mbër wala doomu mbër dañuy jéem a xalal yoon di leen wërëwërloo loolu lool ñu war a bàyyi. Ah, lamb ji dafa am ay ay xalal. Nja Njaatin moom li muy wax xam na ko baax sama combat am na moom ñaata lañ ko dox du benn du laa si bu pare woon tey tey tey billaay li si pare su moom moom moom su demoon lamb ba bëreetul ma dem ba roi des arènes sax bu ñu demee Njaatin ma jël ko waaw parce que xam lu tax ñun ñaar man musuma ko laaj musuma ko tëkk waa lamb moo ñu boole woon parce que moo toog plateau TFM.

da ngay jël ci booy wala da ngay nu mu demee noonu. <laughs> non wallaay yan booy. li li ban booy. non fi génn daaw gis nga leen ay talfa génn na fi ay jaasi pël ay champion ay ndaanaan. jaasi pël de xaw ma ko wax dëgg yàlla. talfa xam nga ko. talfa talfa non talfa xaw ma ko naa turam nii waaye xaw ma ko dëgg yàlla. bëri simple mi ngi def ay preuve bu dee bëri dóor bi macha allah mi ngi def ay preuve. ah kàlla ma ci bëri na rek sox bi. waaw talfa. xam naa xam naa xam naa saan saan comme ambulance waaw. waaw mais garaawul. daal bu ndaw jaasi pël la bëreel gis nga ko baara tot. waaw am nga am nga tal yow talba cinq combat la xum six combat talba ay combat bu réewul. mais xam nga moom laa ne moo tax ma ne làmb ji léegi nekkatul palmarès léegi làmb coow la. dëgg la làmb coow nag na <laughs> non loolu moom du ma jox franchement parler. non non sa digg talfa. aw ma man bëgguma wax de yàlla bëgguma gëstu daal man li sama kanam laay xool mais bu avance bu ñëwoon. ma ne li sama kanam laay xool xooluma li sama ginnaaw <laughs> ku jëm ma ku dem Sénégal goo. doo gëstu ndax dalay taareel. ok sa diggante Sako Bal. non diggante Sako Bal ah làmb la hmm, làmb la. naanaan la de. waaw ah, làmb xam nga ko. xam naa ko waaw. Ah. Ah, waaw làmb la avance bu ñëwoon. avance bi ma fay la ko jar ma bu ñu la fayee loo ko jar nga jël ko. ma fay loo ko jar ma jël ko ndax bu dëgg neexee yàlla a ma a ci làmb def ko ci làmb waaye nag ma fay loo ko jar ma jël ko. ba ba ba bàyyi nga ne musul bëri combat bu yomb. waaw mais loolu moo tax loolu ma ne bu ñu la fayee ma jël ko. inaa li ma def ci ay combat yu métti lay bëri ay combat jànq yu saf saf. man xanaa ma maa fàtte. combat yu méttee méttee. nii xam man xanaa li mu ndigal ba temps bi bëgg a la xanaa man nag maa loolu laay laaj. non man sa sokob de. sokob dama ne bu dee palmarès boolewuñu bu dee coow làmb coow làmb mën nañu boole moo tax ma ne ma fay lu ko jëriñ ma ko. sa boobaa dinaa corriger. incha allah ko. corriger di nga corriger. waaw. Bagat man man maa xam bu baax. moom sax waaw. xam naa point faible bu baax. da si commande bi bëri saan parce que damay def ci làmb damay ñëw amaat damay suivre làmb. damay gis damaa gis koy daal laa wax lu sa gaaw moom moom Sakho. waaw. a ah mais Sakho gisagu ma ànd bi sifle kenn bëre même ñu koy daan sax ba lañ koy daan dañuy bëgg a dee. waaw ñooñu ak man du bokkuñ de. Ah. déedéet borom bibliothèque bi ngay waxal de. bibliothèque. Mm. acca mi ngi noonu SBT Média wax naa seen émission Seeti Mbër ah SBT Média.